moo attaqué kenn wala Sonko moo waxu kenn ba cam ba campagne bi di jeex ba à la dernier moment ñu bëgg ñu yàqal suñu yëpp duñ ko nangu incha allah le 17 yàlla def ñuy may ndam bu soobee yàlla yal nañu yàlla may ndam bi mu ñu mayoon ñu jël jomaay def ko pale yal nañu yàlla may ndam ñu jël Sonko mu dem assemblée nationale bu soobee yàlla dëkk bi dina neex incha allah dafa ni ah, euh, wax ni. waaw Ousmane Sonko daf leen joxoñal nit. waaw ñu daal di ko wootee mu nekk président. waaw waaye bii paa moom moo soxla. moom moo soxla waaw Ousmane Sonko moo soxla moom moo ñu waxoon ne leen wooteel leen jomaay. ñu votel Jomaay kon nag ndaw yi yéen laay waxal génn leen ñu votel Ousmane Sonko Sonko dañ ko war a fay borom ñun ñoo ko war a fay ndax moom moo ñu sagal moo ñu gindi yoon bi kon nag dañ ko votel ànd ak moom mu gañ a pale bu boobaa ñu xam mu gañ a assemblée nationale boobaa ñu xam kan mooy Sonko. Mm-hmm. waaw loolu daal laa mën a wax ci wax gi daal.

grand siyaar nañ na euh, taalibe Ousmane Sonko. waaw Gueye bu Sonko taalibe Ousmane Sonko waaw man la. voilà ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Euh, lan nga mën a euh, sànni ci kaddu. par rapport ak seen mobilisation. waaw ñu ngi leen di nuyu ñu yi ñëpp. di kontaan seen teewaay ah. di gërëm président Ousmane Sonko. di gërëm ñëpp ñu bokk ci parti bi ah. di kontaan bu si teew bu ñu teew fii nii voilà. voilà lan nga mën a dénk ndaw yi. ci li nga xam nak mom mo jotone xew Saint Louis ñu gis ni tay deun yi dañu jóg. waaw ñu dal andak dal rek andak dal baña def lepp ak xet xet ak mer ndax ku ñu andat moom ku dal la ku tay la xam nga lu am Saint Louis nak metti na trop amul ku metti wul muy nga par bi wala nga far fële metti na ñep mais xam nga kenn bëggul ko nonu mais nañ and ak dal and ak président Ousmane songo lu ñu wax mu diggal ñu ñu and ak mom ci lolu ndax xamna duñu diggal dara lo xamanteni dañ ko def di and ak recruté quoi voilà. voilà di len lan euh, nak ngeen di fas préparer le 17. waaw le 17 comme ni nga ko daan defee rek massivement paré yëgëti sun moyen bop dem def sun wote yu baax xaar 17h ci heure bi résultat ñu génn zibilé ba paré ñu xool jall ci lénen inshallah xana xanaa teel a lay doon su bu boobaa. non ñun amuñ ndekki amuñ añ amuñ rër ñun ñi ngi toro di xaar président Mansonko ak li nga xamanteni mom lay gars dogal lu wax rek loolu la lu waxul du loolu ta inshallah bu neexee yalla la di set dinañ am ndam lu neex ndam lu gën ci askanu ci barke Cheikh Tidiane voilà affaire mom comme ni wax rek ànd ak dal andak ak tey ñu ngi teewlu président mom tonko bi diko xaar nu mu gëna a répété mu ñëw ñu nekk ak mom comme ni ngeen ko bëggé inshallah ci jàmm ak dal ànd ak ambiance déglu ko tamit mu wax ñu lu am solo te xamna naa ne du jox ci timit

ci jamono bi nga xam ne moom ne Macky Sall nekkoon fii nii ci li nga xam nag moom mooy nguur gi maire Amy Dia gis ngeen oto bii nii maire Amy Dia moom moo egg si mu ngi noonu ñëpp ñi ngi koy bëggee tàllal micro ñu jéem a xool ndax dinañ mën jël kaddu ci maire Amy Dia di ko gërëm bu baax a baax ñu ngi leen di ziar maire Amy maire Amy nga ñu mën a dénk ci kaddu. mère face caméra c'était à refaire. nous allons le nous allons le faire encore avec une très grande fierté. c'est l'amour pour notre patrie. merci beaucoup. Merci Merci mère Merci mon mo ñew gis ngeen ko ak délégation bi mu en attendant ñu voilà. ñu jéem a xool nan la ñuy mën a jàll gis ngeen maire Amy Dia ak ñu mu àndal waa kër maire Amy Dia ñoom ñoo nekk nii dégg ngeen ay kaddu yi nga xam ne nag moom la jot a rotal ci suñu euh, micro bi maire Amy Dia euh, ku xam euh, histoire bi nag war a mën a xam ni maire la bi nga xam ne nag taxaw na taxawaay bi nga xam ne nag juróon na ko lu bëre ñu daal di ñëw voilà mais Pape Djibril Fall ngir yàlla ak yónni Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall buy booy politique buy politique waaw yéen a ngi may dégg bi Pape Djibril Fall laa koy lancé buy politique da ngay da ngay da ngay politique si ay base yu leer gis nga fen fen yorul réew dañ leen dañoo jàpp suñu leader nag taxe ko def fen mais fen yorul réew xam nga boo toogee si télé naan arena dañoo fay jeunes yi pour ñu dem fa feesal arena man tey géejawaay laa jógee géejawaay maa fi indi sama propre gré liggéey ba deux heures ñëw fi pour taxawal Ousmane Sonko wan leen ne jeunesse jox ñu xaalis man Sonko mosuma kaa gis mosuma dox ba gis Sonko ba dëgg bët kon nag gis nga booy politique da ngay politique ay base Pape Djibril Fall fenn yi fen taxul ñu gëm ko Bougane fenn yi muy fen taxul ñu topp ko keneen ki nu beneen waaj bante li muy daal arrogance yi muy arrogance taxul ñu topp leen kon nag nañ ñu bàyyi Ousmane Sonko bu defar suñu réew loolu laa amoon lu may wax fen nag baaxul baax na bàyyi fen jërëjëf Bougane day dani na bàyyi fen Bougane day dani Bougane day dani nay wax dëgg mbag day wax dëgg gis nga nit du la talal micro rek ngay wax lu la neex di wax sa naf su baxat nit booy wax da wax lu la wóor Bougane Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom man maa leen ko wax fii maire sax duñ ko doon maire waxuma laa ne dañ doon président wala député Sénégal fii duñ doon réew mi maanaam di dënk réew mi ay fenkat ak ay tappalekat moo fi jeex maanaam système Macky Sall bu fi nekkoon dootul amati fi yen est-ce que yéen doon dégg wolu Pape Djibril Fall lu mu doon wax boo la ñu dénkee ensemble ñu mën a def yi mën a liggéey est-ce que yéen a dégg wax boobu maanaam wax boobu xam la lay signifier maanaam bu leen joxee majorité ñoom maanaam ñun loi bu ñu mën a tëral sàcc yi kenn mu leen jàpp sunu alal mënatul génn dëkk bi day dëkk si ndóol encore maanaam même régime Macky Sall bi moo fi desaat mais sa waay lu ñuy xeex dafa yàgg de calculé depuis en 2021 ñuy jàmmaarloo alkaati ñaari nit ñoo si dee